salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal am mbégte dalal fii kii di Pape Matar Sow Pape Matar Sow di président de la fédération des sénégalais qui sont en Turquie Pape Matar ñoo ngi lay jaajëfal di la ziar dèjà di la sant bu baax buñ la woowee pour nga ñëw fii nekkul jafe-jafe xam nañ ne yéen seen ñëw yàgg fii daanaka ay occasion la parce que doo leen am jot ndax yi ngeen di lijjanti fii ci réew mi euh, déjà yow mi nga xam ne yaay woon Turquie bi nga ñibbi ci Sénégal nan nax nga ko nax nga ko gisee ndax réew mi nga fi bàyyi woon moo fi nekk wala am na ay soppeeku. waa asalaamaaleykum waa Sénégal yëpp euh, rawatina ñi leen di suivre à travers monde bi yëpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk Turquie euh, di nuyu waa fédération des sénégalais de la Turquie bi nga xam ne ñoom lañ àndal di dox. ak lijjanti yi tey sénégalais yi waaye di nuyu général Cheikh Gueye ba fa nekk nga xam ne mooy ambassadeur bi di nuyu aussi tamit euh, daayira yi ñu ko jiite ku mel ni baayam tamit jiite daayira murit bi waaye di ji nuyu aussi tamit Massar mi nga xam ne moo jiite daayira Tidiane bi euh, di nuyu grand mi nga xam ne ña fa nekk ci jàngu bi aussi moom moo ko fa jiite di nuyu aussi grand si euh, kii Ndiaye mi nga xam ne moo jiite Euh, daayira Laayeen bi ñu ngi nuyu ñëpp daal waaye rawatina képp koo xam ne yaa ngi suivre émission bi ci Sénégal. déjà question bi mooy bi nga jógee Turquie ñëw fii ci sa réew xam nañ ne léeg-léeg seen ñëwaat fii du yomb dafay xaw a jël temps mi euh, nga ñibbisee fii ci mim réew yow nax nga ko gisee ndax gis nga fi ab coppeeku wala li nga fi bàyyoon moo fi ne ba tey. waaw xam nga mm, dem tukki dafa métti aussi tamit ku sañoon boo tukkee ñëw. Eh, li nga gis ci yeneen réew yi moom ngay gis sa réew wala la nga gis ci yeneen réew yi da ngay bëgg moom sa réew waaye ñun dañuy jàpp ne toujours ñu tukkee ba ñëwit niveau bi ñu fekkoon réew mi fa lañ koy fekkaat loolu nag lu doy waar la ak suñu gisee état yi ni ñuy pousser pour fexe nekk ci euh, niveau àdduna bi fi mu toll ci ay réew. waaye du tere heure boo ñëwee sénégalais yi aussi da ngay gis benn mentalité bi ñu amee mel ni ne comme mentalité bi bougé wul aussi tamit infrastructure boo koy xool dina dina am ay quelques changements mais yow li ngay jàpp mooy mënoon na am lu ëpp lii. waaye dina am lu am lu changé mais du tere it yow foo bëgg a dem it mën nga fa yóbbu sa bopp kon moo lay wan ne changement bu nga xam ne moom nga ci doon xaar. mën nga koo bañ a gis. d' accord Turquie xam naa dëkk la boo xam ne quand lu sori la fii ci Sénégal euh, nee nañu dëkk la boo xam ne bëri na ay sénégalais yi fa nekk lool yow nga nekk président bi nga xam ne moo fédéré sénégalais yi nga xam ne ñoo fa toog di fa daan doole euh, nekk ci njiit nekk njiit ci structure bu toll noonu ban jafe-jafe dèjà ngeen ciy rencontré. bon bëri na parce que aussi euh, boole ay nit yoo xam ne bokk leen fu ñu leen yaree. bokku leen nu ñu leen yaree bokku leen fu ngeen juddoo déjà loolu rek dafa métti mentalité yi mën na doon bañ a doon benn parce que am na si ñoo xam ne tey fañ jugee ak yow fi nga jugee ak keneen fi mu jugee ak keneen fi mu bokk ak keneen ni muy xalaatee ak gis-gis bi muy am te ñoo ñëpp da ngaa war a boole li la neex ak li la naqari ci ñoom téye ko parce que euh, dafay sama sëriñ day wax ne euh, muy xalifa général des Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla dolli ko wér danaan boo xoolee li la yàlla defal da nga koy muñee li la nit ñi di def kon kàddu boobu saa buñ ci bàyyee xel rek day tax luñ mën a am wala luñ mën a dégg ci retour ci li nga xam ne ñu ngi koo ànd ak ay nit dañuy yokkaat force. mu nekk lu xaw a jafe mais bon di nga ko gere nga xam ne tey côté état dañ la waroon a soutenir war laa dimbale mais ba léegi day manqué mais daal. nekkul lu yomb mais yàlla ak ñuy suturaal ñi ngi avancé petit à petit ak euh, ñi nga xam ne am nañ mentalité gëm ne li ñuy def pour dimbale ay doomu aadama la ñi nga xam ne aussi tamit gëmuñ ko danañ xam ne li waa di wax yoonu dëgg moom boo ci nekkee di nga néew ñu lay gëm waaye am na ci ñoo xam ne si seen xol danañ xam ne yow mii li ngay def nii jaamu yàlla la te jàmbaar nga. ñu nekk ci période boo xam ne lii di émigration clandestine maanaam di tukki di ko jaaree ci yoon yoo xam ne teguwul ci yoon dafa bëri. sénégalais yi bëri di ñàkk seen bakken ci géej gi waaye ba tey am na ñoo xam ne dañuy yegg à destination est-ce que Turquie am na ay sénégalais yi nga xam ne dañ fay yegg si te jaaruñ ci yoon wi nga xam ne moom la ñu santaane. bon jeex parce que am na parce man damay gis ne état bi toujours buy wax ci imi immigration clandestine moom day jaar day jàpp ci ñiy jaar ci yoonu suuf bi mais am na ñoo xam ne dañuy jël vole te clandestinement la ñuy def parce que tey da ngay gis sénégalais boo xam ne day jóge fii ñëw siri Syrie ak Turquie da koy dox am na ñoo xam ne dox nañ ko 20 jours pour dugg ci Turquie am na ñoo xam ne Irak lañ jaare jógee fii am visa Irak dem Irak dox dugg ci Turquie kon déjà état bi li may wax toujours dafa am benn fausse. ñoom Espagne bi rek Espagne Italie foofu la ñuy bàyyi xel quoi. boobu mais tey mi ngi mel ni tey Grèce boo demee euh, Brésil. mais bëri na sénégalais yoo xam ne bi ñuy dem États-Unis ci yoon bi ñu jaar am na yoon yoo xam ne dañ koo dox te pourtant voie irrégulier la mais ñoom yooyu duñ ko wax ñoom jàpp nañ ne ki jaar ci ndox mi rek moo nekk ci voie irrégulier te yoon boobu noonu ñaata sénégalais ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaata sénégalais ñoom lañ seeni mbokk xamuñ ci lan lañ nekk xamuñ ñi leen jàpp ci kaso yi Mexique bi gis nañ jamono yële ñi ngi kidnappé nit ñi di leen jàpp ko yoon yu danger la yoo xam ne ay nit a ngi ciy am ay jafe-jafe mais doo leen dégg mukk ñu prononcé si jàpp nañ ne voie irrégulier ci côté géej gi rek la wala côté ñiy dem Espagne moon loolu nag daf ma jaaxal trop. d'accord léegi bu ñu yeggee ita kii Turquie fekk leen fa ñooñu nga xam ne dañuy ñëw souvent dañuy am problème langue am problème accueil eh, yan structure yan cadre ngeen taxawal pour mën leen accueillir mën leen orienter ba dimbali leen te duñu am problème yu bari. waaw parce que xam nga tey fédération bi ñu amee benn structure la boo xam ne bi ñu ko taxawalee dañ ne bépp sénégalais bu ci bëgg a bokk da am carte déjà. bon parfois aussi tamit nag euh, bon comme li may wax nii du yomb ndax léeg-léeg nga gis ku ñëw ne la man aw ma fi kenn xaw ma kenn fii wala dama fi ñëw nii rek aw ma fu ma fanaan ñëw sama bureau. je suis obligé parce que tamit bu ay nit waaw bu ay nit tegee benn structure boo xam ne amoo subvention état amoo benn xaalis booy am lu dul yow président ñëw fa may la tey xaalis wala. carte yi nga xam ne jotoon nañ ko jaay nit ñi ñoo ko adhéré rek yooyu ki nga xam ne day doog a ñëw bokkagu ci boo tu es obligé nag yow nga jël sa xaalis damay jël sama xaalis man personnel la ma la mën a dimbalee dimbalee la ko ne la nag xaalis bi nga xam ne xaalisu fédération pour les sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ko cotiser fii man mënumaa jël engagement di la ko jox mais du tere nag lépp lu ñu mën ci dimbale la dinañ ko def bu boobaa man da des fois ma oote daayira tiijaan bi comme am naa fa accès ñu ubbi kër ga nga dem nekk fa le temps que ngay dem ba am foo nekk su dee fekkee murit la aussi tamit des fois dañuy ubbi kër sëñ Touba gi nga dem fa toog fa ba keroog ngay mën a dem noonu lañ koy jongalee ba nga mën a dem ba intégré ci loolu yëpp nag day tax tamit ñu la la fexeel nga ut carte consulaire parce que aussi tamit. immigré yi loolu dafa nekk seen problème parce que da ngay ñëw rek toog ci sa ruq jàpp sa ñàmbur mais état mun na la baña xam tey boo demee ba am jafe-jafe mun nañ baña xam ne am na sénégalais boo xam ne mu fi parce que lay tax ñu xam ne yow mii sénégalais nga carte carte consulaire ci la bokk parce que mooy repr mooy lay wane ne yow fi mu toll nii nekk sénégalais bu résider en Turquie nga mais soo ko amul léeg-léeg mu indi jafe-jafe mais yooyu yëpp de toutes les façons bu ñu amee ay programme yoo xam ne dañuy daje dinañ leen ko ci leeral di la wax ne dem leen ngeen uti carte consulaire tey ni ñuy dëkkee ku ne koo mën a dimbale nga dimbale ko te yàlla tax parce que gis nga ki la gën a jege rek mooy sa mbokk rawatina nag ci tukki yàlla bu la dajalee ay nit ñoo xam ne xamoo leen foofu la leen yàlla boole yéen ay famille man damay wax toujours ne jafe-jafe bi sénégalais bi di am ñu koy weer ci mbedd mi nañ ko faj ci kër yi ba pare avant muy génn loolu nag mooy solidarité mais su fekkee ne sénégalais dafa am jafe-jafe ba mu génn ci mbedd mi ñu ñu koy ketal wala ñu di ko lijjanti nga joxe ci sa xaalis man jàpp ma ne loolu solidarité la solidarité day tàmbalee ci ci biir kër tey am na sénégalais yoo xam ne dama leen di wax ci intégration bi la bokk boo ne cëpp ci dëkk bi da nga war a am puce parce que système merci de me rappeler bi am fii am na fa même soo amul compteur pour woote soo amul crédit pour woote di nga mën a def merci dama rappeler te jafe-jafe fu ne lay ñëwee donte ñun bañ fay ñëw 2012 si loolu la amoon mais nag bon tukki chaque année dafay am changement buy am ñi fay mujjee ñëw toujours yéen li ngeen planifié ba teg ko jàpp na yoon bu gën la ñay mujjee ñëw mun nañ bañ a jaar ci yoon boobu mun na am ay changement mais ñun toujours dañuy wax ne sénégalais bu fa ñëw bees rek war nga mën a am de un puce boo xam ne. tey boo nekkee ci jafe-jafe mën a woo ay nit ñu xam ne yaa ngi ci jafe-jafe mais récemment sénégalais yi fa mujjee ñëw nii da ngay gis koo xam ne téléphone bi mu yoroon Sénégal ak WhatsApp boobu moom lay doxee tey gis nga tey bu la police intercepté amul benn police booy dem ñu jox la code wifi bi na la dugalal sa wifi woo say mbokk moo tax léeg-léeg sénégalais am jafe-jafe ba am deux jours wala trois jours ñuy doog a xam ne kii am na jafe-jafe te fekk na bu amoon puce pour mën a woote même bu amul crédit bu defee merci dama rappeler nitam dana ko woo te damay wax aussi ñun ñëpp ñu xëy ngoon jot ñu dajee ci kër amut ku ñëw ñoo xaar war nañoo lijjanti lan moo tax ñëwut loolu yëpp ci solidarité la bokk. aussi kër yi des fois da ngay gis ay nit ñu dëkk ñoo xam ne mun nañuy bañ di togg parce que am na kër yoo xam ne ku nekk boo wàccee da ngay jënd sa lekk ñëw waaw loolu yëpp nag ci intégration la bokk bu togg di am ci kër. nga xam ne bu ñu wàccee ñun ñëpp danay dajee ci saal waxtaan la temps que ki aye togg bu boobaa eh, xumal dara mais stress bi ngay yendoo yëpp sax day deñ parce que le fait que yaa ngi waxtaan ak sa morom mu wax la moom journée nu mu méttee yow boo xoolee ci sa bos man cee santé wala moom bu la waxee journée am ni mu neexee mu wóor na ne sa bos moo dàq bosam mais da ngay firi cest yooyu dem nag bokk na ci yi ñi fa mujjee ñëw xëy na yooyu comprendre uñ ko mais terewul discours la yu ñuy tenir oh, waaw lu ñuy gën di dem rek xëy na dinañ dem ba gën a comprendre. d'accord ñu nekk tamit ci jamono joo xam ne sénégalais yu bëri dañuy ñaxtu buntu xatal bi nga xam ne naar yi wala arab yi wala turki dañ leen koy teg ba dem ci ay torture ba dem ci ay ñàkk bakkan wala sax di rey nit euh, sénégalais daan ko en tout cas jàllale ci réseaux sociaux yi phénomène boobu lu am la wala wala wala communication médiatique kese no lool lu am la parce que gis nga Turquie yi man damay wax ne man mun naa leen a bañ a blâmer parce que dëkk bu nekk da nga souveraineté ci ni nga bëgg a doxalee sa réew waaye boo amee ay relation am ay coopération am ay ay ay ay ay ay liaison bilatérale yoo xam ne am nga kook yeneen dëkk dafa bokk ngeen di toog di waxtaan sa état ak état turk dañoo war di toog waxtu bu nekk di fexe xam jafe-jafe sénégalais yi di fexe xam diplomatie bi ndax niñ ko tegoon wala fiñ ko bàyyi woon ba xam ndax mu fa ba léegi am déet mais man gëj naa gis sax commission mixte am te jaaduwul diggante turc ak Sénégal li fi jaar ci at yii nii nga xam ne yàggul man li ma gëm mooy chaque année commission mixte war na mën a am parce que benn bu fekkee ne nit ñi daan dem Turquie la gën nañoo yokk su fekkee ne investisseurs yi ñëw Sénégal la gën nañoo yokk kon loolu waratuñoon woon muy durer ay at te commission du am. du yoon le fait que nag li may wax saa bu fa président Macky Sall ñëwee ñu koy sant di ko gërëm parce que moom mbër bu fa ñëwee recevoir na ma quatre fois toog nañ di waxtaan musuñu bu wax lu jéggi tamit jafe-jafe sénégalais yi te loo ko ci wax lum mu comprendrewul day taxaw wax la ne la lii lan moo ko waral parce que ba mu fay 2015 dafa ñëw ñu waxtaan ak moom man loolu récemment rek bi mu fa mujjee ñëw wax nañ ko wax naa ko ko mu ne ma lii nga wax sax mooy dëgg ma ne ko man président ñun waratuñ woon a toog di wax ak yow ci côté séjour parce que dañ koo réglé woon ba mu jeex tey Turquie ak Sénégal Turquie ñoom ci alal la ñuy wax. mais waxatuñ di ñëw di investir mais lan lañ fiy récolter fa lañ toll parce que destination bi woon mooy nañ dem investir yi Sénégal ñëw nañ investir léegi ñi ngi am xaalis nan la ñuy def seen xaalis pour mu dem Sénégal ci pour mu dem Turquie ñoom ci foofu lañ toll ñun xoolal 2012 ba léegi ci liñ toll mooy séjour dafa xeebu sax. te lépp lu ko waral mooy suñu état yi suñu ministère. parce que tey man su fekkee ne diggante Turquie ak Sénégal président ñëw na fa ñëw jooytu ko ay këyit mu wax ci président Erdogan ba këyit yi am Turquie yi jox ñu un an humanitaire. parce que si législation turque dañuy wax ne képp koo xam ne ñëw nga fa ak visa bu bees balaa une semaine war nga mën a déposer séjour parce que ñoom seen séjour yi prolongation visa la su loolu amul yow da ngay dugg sans papier. bon bi mu fa ñëwee ñu wax ko mu waxtaan ci président Erdogan président Erdogan accepté ko ne ko non dinañ leen may ah ñu waxtaan ci dajale sénégalais yëpp boobu ñu tolloon ci mille cent quarante 1444 ambassade bi dem déposé fichier bi biñ ko déposé ñu woo nit ñi may leen ay séjour. humanitaire parce que dañoo waroon a génn mais ñoom c'est géré nañ ko ba génnuñ bi loolu amee ñu nekk fa un an yi di bëgg a jeex ñun équipe bi ñu amee en tant que président fédération mën na leen léegi waruñu toog parce que bu ñu lijjantee dara ba mu jeex ñun it am nañ ci rôle. ma daal di jug ak équipe bi ñu dem seeti commissaire au ministre des affaires étrangères bi nga xam ne moo géré affaire bi ñu ne ko ñun de dañeen ñoo joxoon ay séjour un an. un yi nag dafa jeex dañoo xamul ndax da ngeen ñuy continuer ci humanitaire bi wala da ngeen ñuy génne dugal ñu ci système normal turk bi parce que système normal turc bi séjour boobu courte durée la ñun xamoon nañ ne bu ñu fa duggee dañuy dañuy yàqaat kayit yi ñu dugg fa ñu dem ñu ne non waaj nañu il faut ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo ko waxtaanee woon ñu toogaat waxtaan suñ waxee ne dañ leen di continuer fii parce que fii moo gën ci yéen. ngeen ñu continuer ko su fekkee ne loolu amul man dama leen di génne fii dugal leen courte durée te courte durée ku ma ko jox ñaari yoon benn un an wala ñaari yoon deux ans muy quatre ans dootuma la ko joxaat dama yàq séjour bi kon loolu fala problème bi tàmbalee kon loolu man dama jàpp ne fotu état la. bu Sénégal nag parce que Turquie aussi tamit man jàpp naa ne lañ négocier woon affaire yi xaw ma lu mu doon mais état Sénégal respecté na ko kon ñoomit waroon nañoo continuer la nga xam ne waroo wax na warloo woon nañ ko ñu respecté ko. fa la coow li tàmbale ñu commencé ñoom it du génn ñu dugal ñu ci système normal boobu système boobu comme li waa ji waxoon fi mu toll nii sénégalais yi. am état du Sénégal moo waroon dox. pour ngeen mën a nekk ci système humanitaire bi quoi. mu continuer moo tane woon ci ñun. gis nga bi fa président ñëwaatee ba mën a ko ñun de séjour yi nga xam ne wax nañ jox nañ ñu ko. munuñ ci liggéey daf ko jaaxal moom. daf na ma non jëlaatal micro bi nga leeralal ma ma xam kon président li mu waroon def def na ko mais su amee support boo xam ne chargé des sénégalais de l'extérieur la. moom moo war a continuer li président liggéey. mais malheureusement amul ba loolu. indi jafe-jafe tey ci sénégalais yëpp ba fi mu toll nii boo xoolee am na sénégalais yoo xam ne looloo tax ñu nekk sans papier. bu fa amee ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall à l'époque waxoon ne woote na autorité yi fa nekk homologom bu euh, en tout cas. sax ñëw na fa ñëw boo xam ne. Euh, bon doo xam suñu état yi parce que tey ñun bu ñu fa nekkee nekk ay sénégalais de l'extérieur ñun ñoo am problème boo ñu tegee dem gisi Turquie ministre des affaires étrangères turc nga wax ak moom te ñun waxooñu ko ñun Turquie yi amul lenn benn autorité Sénégal buy ñëw si mission te ñun duñ ñu ko wax xam nañ ay nit yoo xam ne ministre des affaires étrangères lañ ne kon loolu gàcce la sax ci ñun. parce que ab sénégalais bu nekk ci réewam. ministre am déplacé wu ñëw ba foofu di ko nëbb wala waxuñoo ak moom ba ñoom ñu la koy wax man pour man loolu gàcce la mais nag yàlla dogal na bi mu fa jógee waxuñ ñu lan la fa jëlee. mais man ci li ma gëm. rek sottiwul man li ma gëm mooy cinq jours après mu jóge fa sax dafa tombante ak màggal Touba. li ma lay wan ne xaw ma lu mu fa doon lijjanti. ak lu mu fa doon wax. cinq jours mu fa jóge màggalu Touba ñëw am benn booy boo xam ne da doon ñëw ci màggal gi police yi contrôlé ko. mu daw dugg fi ñu doon màggale police yi dugg fa ne dañ koy génne mais su fekkoon ne kon la mu doon négocier wala lam mu doon wax rek la ne loolu dina am. mais dana am signal boo xam ne dina wàcc ci police au moins ñu ne yaxanal leen sénégalais yi léegi la kon man jàpp naa ne la doon lijjanti sotti wut. bon Annette nag dégg naa ne mi ngi waajaat pour dem fa. bon semaine bii nii incha allah pour dem fa wax ak moom parce que aussi. waaw dina la fa fekk rek. non man góob mu fekk ma fa parce que comme maa ngi fi te aussi tamit li ma lay wax toujours. gis nga boo ànd nit ngeen war a benn affaire bëggoo mu di la wax dëgg wala mu di la wax lim ci xam ak ni mu demee da ngeen di nekk da ngeen di dalay éloigné parce que bëgguñ ku leen di wax dëgg. mais est-ce que doo profité laataa ngaa dellu Turquie jéem xool nooy daje ak ministre bi Ismaïla Madior Fall mi nga xam ne peut-être war na ci mën a def dara. waaw loolu moom maa ngi ci mais honnêtement moom. Euh, ministre près du ministre ñu koy nuyu au passage demandé naa ko ay yoon. mais jàpp ma ne bëgg na ñu gisee. mais loolu tamit man amul problème de toutes les façon ñun li ñuy engagé mooy nañ wax message bi ba président yëg ko. mais ANAT moo leen war a recevoir surtout que yow yaa ngi Sénégal da laa war a recevoir déglu la comme ça nga waajal ko Turquie comme ça tukkeem boobu nga xam ne mu ngi koy waajal a def foofu pour dem Turquie. mu doon tukki boo xam ne lu ñu préparé la nga mettre ko au parfum li ko nag. mais ñoom bëgguñ loolu parce que ñoom jàpp nañ ne yow liñ liñ lu leen neex nga leen di wax ñun nag duñ wax kenn lu ko naqari duñ wax kenn it lu ko neex mais lii dëgg la ñuy wax dëgg nag moo neexul. parce que aussi tamit man depuis mooy waaj pour ñëw fi laa koy woo pour ñu gisante te xam nga gise bi lu ko lu ci ëpp njëriñ xam nga lu mu doon dafa am ay sénégalais yoo xam ne dañ leen a delloo si fii ci dëkk bi niñ leen delloosee jaarul yoon. ma ne ko dama bëgg ñu toog waxtaan parce que ñiñ delloo si mer nañ tey ñi ngi génn di def ay sorties mais sorties yi ñuy def mën na indi incident diplomatique mais dajale leen nga toog ak ñoom waxtaan ak ñoom parce que dafa am ay fonds yoo xam ne c'est destiné au Sénégalais de retour am ay fonds yoo xam ne c'est destiné au Sénégalais de l'extérieur mais au Sénégalais de retour yi fi nekk nii nga dajale leen wax ak ñoom parce que am na ci boo yoo xam ne bi ñu fay jugee am na ay nit yu leen joxoon xaalis na leen jëndal leen ma marchandise ñu ramasse leen ñooñu am na si ñoo xam ne dem nañ ci ay naar def fa déposit joxe fa dara xaalis bi des mais ñooñu loolu yëpp dañ ko war a régler. mais ñooñu ku koy regle état moo ko mën a régler dama lay wax gis nga ñun amuñ noonoo ak kenn dañoo xam di wax te li ñuy wax dëgg la nit mënu ko dindi mais ne ku jàpp ne li ñuy wax dañoo da dañ lay xeex wala dañuy noonoog yow kooku sa gis-gis la. mais ñun de toutes les façons li nga xam ne moom mooy dëgg te muy jariñ doomu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk turki ñun moom la ñuy wax ba géej gi fay amuñ ci lenn luñ ciy ragal parce que dëgg moom yàlla moo ko moom te dëgg rek mooy dëgg kon état bi aussi tamit na bàyyi xel ñun di ñu dëglu parce tamit mënoo fee jugee. beneen support communicationnel. mais mais mais mais président de fédération bu nekkee fii ci dëkk bi nga ne damay préparer pour dem Turquie te nangu woo ko recevoir. yaay porte mais mënoo mënoo faa def luñ. l'autorité diplomatique maanaam l'ambassadeur vraiment yaa yaa mais loolu moo ci am mais tey yow bu fee <laughs> yow ñun ñun li ñuy liggéey tey yow ñun amuñ subvention état. fédération bi kenn fayu ñu benn dërëm dañ koo gànte volontairement tey gis nga li gën a doy ci. état turc fi mu toll nii sénégalais bu la ko wax ak bu la ko waxul ñi fay jaar ñu ci ëpp dañuy am problème. léegi yow nga am problème amul juriste bu ko mën a lijjanti man xam naa ay sénégalais yu bëri yoo xam ne ay turc lekk nañ seen xaalis wala jël nañ seen alal mujjul fenn. man récemment gis naa fi benn Séné benn turc boo xam ne am na fi problème mu engrais tëjuñ ci ay sénégalais. tëj nañ ci ay sénégalais. topp dossier bi di ci wax te am na ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi fii doon ñëw turc am problème turc ba léegi réglé wul. mujjul fenn amul fuñ mais. loolu kenn mu man mënu ma mënu man loolu dafa may def kaa ba léegi ci état boo xam ne tey turc Europe jeex na ci moom. turc Asie jeex na ci moom. Amérique jeex na ci moom Afrique la daw ut si parce que xam nañ ne Afrique moo des. mais affaire bi nag bu desee ci fii ñu nekk ñun war nañoo mën a am fulla ak fayda goo xam ne bu ñu leen di jox li ñuy soxla it nañ ko waxtaanee ci table ba nga xam ne doomu sénégalais ya fay dund danañ fa am jàmm mais tey am na doomu sénégalais yoo xam ne depuis tabaski ba léegi ñi ngi toog ci kër yi nanguwuñoo génn. ndax bu ñu génnee amuñ séjour bu ñu génnee ñu jàpp leen tey président Erdogan. Afrique dëkk yim fi gën a dem ci fanaan fa sax Sénégal la kon am nañ ay relation yu baax mais tey imaginel turk su demee ba tey doomu Sénégal bu nekk ci kaso nga ne ambassadeur bi defaral ko sauf conduite ma yóbbu ko ambassadeur bi na la du ma ko def parce que pour ma def ko il faut sénégalais bi nangu ne dafa bëgg a ñibbi nga woo sénégalais bi mu ne la man bëggumaa ñibbi mais Turquie forcé la defaral la ñoom sauf conduite indi la ci réew mi jaaduwul loolu rek waroon naa tax ñu toog waxtaan loola ñu régler problème bi parce que man li ma war li ma war a defar soo ma ko defarlee mais war naa laa wax ne la kaay ñu waxtaan. mais loolu amu ci nga xoolaat tey am na ay sénégalais yoo xam ne dañ leen di tëj 6 mois am na yoo xam ne 9 mois yére biñ soloon. moom la ñuy wàccaalee Dakar ak ay carax. ci ci amul dara lu leen di topp ci moom moment boo xam ne yow sénégalais bi billet bi nga ko daggal am na ci ñaari vingt trois kilos. est-ce que xam nga loolu mën na loo nit. mais sénégale yu bëri dof nañ fii ci dëkk bi waxuma sax dof loo nit mais ñi nga xam ne dañoo ñëw feebar. après quelque temps ñu faatu mënuma xam naa ci ay nit ñoo xam ne biñ ci prison bi lañ feebaree ñëw mais prison boo fa demee fi mu toll nii nit ñi dañ leen waxuma paquetage mais lu ko raw moo fa am. prison boo xam ne yow dañuy xëy jox la benn kopp jus bu ndaw ak benn daggati mburu le matin le soir la même chose boo waxee ñu ne la noo bu ngeen lekkee dangeen di demander toilette mais aña dignité doomu aadama mais nit ki rayul nit sàccul fenul mais séjour la manqué la permis de séjour mais kooku dañ kaa war respecte respecté. séjour luñ ciy tëj nit prison kam wutal leen ay centre sax peut-être. même bu nekkee délit d'accord ñàkk séjour ci dëkk déli la mais diggante Turquie ak Sénégal. jàpp naa ne suñu état yi war nañoo mën a waxtaan ci. est-ce que du fullage fullage moo des full full ak fayda boo xam ne. war nañ ko war a mën a am pour. loolu moo am parce que Turquie bu ñu amee fulla bay jàpp ay doomu Sénégal ndax permis de séjour mais ci moment boobu doomu sénégalais yi Turquie ñu ngi leen ubbil fii ay espace yoo xam ne lu leen neex def. lu leen neex def man nag man nag dama comprendreul turki ak Sénégal lan moo ne ci biir parce que tey lu xew buñ ci nañ leen ñu ci boole ñu bañ. mais ay nit mënoo leen di leen dimbali man dama naan tailleur bu bëggee ñawal nit yow ki ngay ñawal mi ngi toog. mën nga koo jëlal mesure. mais bu ko app peu près ndax boo ko à peu près dana ëpp wala mu xat. man loolu comprendre ma te suñu état nag noonu lay doxee fi mu toll nii ñoom jàpp nañ ne les sénégalais de l' seeni noon la ñun duñu noonoo kenn cest à dañoo am lu ñu xam. ku def si dëkk treize ans am nga loo fa xam. kuy dugalanteeg Turquie ñun dañ doon jaay laata yàlla dogal ñuy ubbi ay cargo di def import export dañoo duggoon ci boutique yi di jaay ay montre rek dugalanteeg Turquie xam seeni culture. Turquie da ngay xëy léegi ñëw soxla ci moom benn kayit mu bañal la ko. boo waxee mu ne la sama morale moo bësug tey nekkuma su suba bu ko amee lu ko neex mu kontaan boo ñëwee loolu mu la bañaloon démb mu nangul la ko. kon kooku nit xam nañ ko mais nag malheureusement état bi da nga leen di wax gauche ñuy waxtaanee droite. xam nga politique quoi parfois. tey sénégalais yoo xam ne dañoo toog ci seen kër yi mënuñu génn presque tabaski ba léegi seeni moroom ñooy liggéey ñëw di leen yóbbaale ci lekk seeni moroom ñooy liggéey ñëw di leen yóbbaale ci fayu luyaas yow ci moment boobu noonu. mi ngi am ay doomu sénégalais yoo xam ne ñi ngi leen di takk di leen indi dakaar ci anam yoo xam ne jaarul yoon fan yële am na fi cinq yoo xam ne dañ leen a indi bi ñu ñëwee ba fii commissaire police frontière bi na leen non booy dañ leen di delloowaat. Turquie booy bañ mu insister na leen non parce que Turquie jamono yëpp niñ leen di indee jaarul yoon booy accepté. yóbbuwaat leen Turquie yóbbuwaat leen Turquie. ñu delloowaat leen mais c'est bien baax na sax. mais dafay am continuité parce que yow boo xasee ba def loolu li nga war a def mooy aviser ministère na ah Turquie kat am na ay doomu sénégalais yu ñu fi indi. yu jaarul yoon mais delloowaat naa leen mais ministère bu woowee ambassadeur bi aviser ko na ko am na ay doomu sénégalais yu fi ñëw démb. léegi préparer leen pour ngeen xool nu ngeen leen di jëlee mais bi ñu leen indiwaatee Turquie fa lañ leen bàyyi boo yu yendu fa benn journée. ci aéroport bi ba woo ma téléphone ma. ñun dañoo ñibbi woon mais dañ ñoo indiwaat te bi ñuy ñëw waxoon nañ ne ambassadeur dinañu teeru si wala yow. ma ne leen man je ne suis pas au courant xaw ma woon sax ne yéen wàññi nañ leen ma woo ambassadeur bi wax ko ko ñu nekk ci di négocier pour ñu wax xam nga lu leen Turquie wax. waaw ah, d'accord léegi niñ leen indee baaxul léegi yéen defaraleel leen suuf sauf-conduit ñu delloowaat leen. encore waaw. ambassadeur bi na leen non parce que comme ñoom bëgguñoo ñibbi. mënuma ko def mun ñu ne kon dañu leen di delloowaat prison ñu jëlaat booy yu yóbbuwaat prison mais loolu loolu lu mu doon ne diplomatie waxtaan ba juboo la mais suñ demee ba diplomatie turk ak Sénégal mënuñoo am benn accord boo xam ne mais waxuñ nga dóor parce que diplomatie waxtaan la ak juboo waxtaan dafa war a am juboo am waxtaan bi nag mënul paase sama doomu réew ñi ngi ci jafe-jafe kaay ñu waxtaan ci buñ ci waxtaanee juboo am parce que c'est pas méchant amul réew bu Turquie boo demee Allemagne boo demee Japon boo demee France boo demee fépp ñi ngi fa ci àdduna bi Turquie gii rek ñu Sénégal gii rek ñu ngi naan plus de 3000 Turcs ñoo fi ne. kon communauté bu rëy lañ fi. tey comme li ñuy wax. bëri lépp mais Turquie dañuy jënd kër sax fii léegi commencé nañ ko di nekk ay bailleur yow loo xam ne mënoo ko am seen réew ñun donte li may wax toujours pont bascule bi tolloowut ci commerce économiquement mais nag. dañuy participer bu baax a baax ci économie turque tey lépp loo xam ne sénégalais yi ñu ngi koy soxla fi mais turc lañ koy jëndee kon am na luñ ciy joué chaque semaine dafa am fret aérien boo xam ne sénégalais yi fa nekk ña ngi koy def conteneur dañ koy chargé muy jugee foofu di ñëw sénégalais yi fii ñëw di fa jugee di ñëw foofu nga xam ne dafa am ñoo xam ne tarjumaan lañ leen di wax ñooñu li ñuy liggéey mooy boo déggul làkk bi ñu ànd ak yow ci marché bi mais kon kon ñun nekkuñ fa di taxawaalu dañuy contribuer ci économie turque kon état Sénégal war nañoo mën a jàppale ci loolu am na sénégalais yoo xam ne boutique lañ fa ubbi di jaay ay yére ubbi fa ay restaurant loolu yëpp sénégalais yi ñu ngi ko fay def état Sénégal nag malheureusement bi nga xamee ne ñëwul nag uuf si njabootam nga nekk turki fexe luñ fa bëgg wala lépp loo xam ne ñu ngi koy sonn wala loo xam ne ñu ngi koy am jafe-jafe ñu jàppale leen ci mais ñun yuuxu nañ ba sonn. wax nañ bay bëgg a dee te tamit nag dafa metti ngay gis doomu turk yoo xam ne ñi ngi fii ñëpp gis leen ñu am jàmm ci réew mi centre Abdou juuf bële soo demee aéroport bi ñoo ko àggali bërki démboo Njaay euh, président uni inauguré na ko terre bi gaar bi jëm aéroport ñoo ko defar ONU seen chaise bi gën a mag ci Afrique ñoom ñoo ko defar mi ngi fii bërki démb président inauguré na ci benn benn benn entreprise boo xam ne ay euh, chambre à coucher lay defar di di di di ay meuble di defar ay matelas ak yëpp mais kon ñun fan lañ jëm ñun déjà c'est-à-dire dafa am loo xam ne ci calcul rek ñun ca dëkk ba loolu la ñuy def dañ fa toog ku jënd bagage ñu indil la ko. dañ fa toog di jënd bagage di ko indi fii waa léegi bu ñu demee nag ba kooku ñëw implanté ko fii ne da ko fiy defar dèjà ñun dootuñ ti ñi nga xam ne ubbi woon nañ fi seeni boutique aussi tamit di liggéey ci système boobu ñooñu tamit ñu ngi ci dañuy daal di nekk ci fayit kon état aussi tamit man damay wax toujours war na revoir politique am ci réewam parce que lii yëpp mooy indi nit ñi di bëgg a génn dëkk parce que am réew boo fa nekkee da ngay am yaakaar ci sa réew am yaakaaru xëy mais li tax nit ñi di génn di dem Europe yaakaar rek lañ fa am mais kenn xamul lan ngay fekki pourtant Europe bii ñuy ñëpp di daw di dem amatul dara amatul dara mais yaakaar nañ ne dafa am dara kon nit ñi nekk fii ci réew mi dañoo war a fexe ba nit ñi am yaakaar ci seen réew toog fi mais malheureusement su fekkee ne yaakaar amu fi nit ñi ñu toog. ban message léegi ngay lancer rapidement en quelques secondes euh, au président de la république xam naa ne moo ci ma dara. bo mooy chaque jour ma wax ko man dama gëm ne ni problème mu Turquie ak Sénégal demee waxee wuñ ko ko niñ ko ko war a waxee moom président. parce que nit la koo xam ne kuy chaque à chaque fois boo ñëwee Turquie recevoir communauté bi laaj leen luy seen jafe-jafe. la ca ëpp wala lam ca man mu dem ba ci président Erdogan waxtaan ceeg moom te bu fa jógee ñu xam ne ñëwoon na fi wala problème boobu réglé na tey lii am muy traîner presque six mois man li ma gëm mooy wala bu ko yëgee it waxee wuñ ko ko ne nii nii nii la affaire bi demee. parce que su ko xamoon wala suñ ko waxoon ne nii la affaire bi demee man li ma xam ci président dana ci wax. kon ñu ngi koy wax moom mu. ku ko mën a jotale na ko jot parce que doomu sénégalais yi sonn nañ turk fa sonn yem métti ngay gis ay doomu sénégalais yoo xam ne ci jafe-jafe yi nekk dafa déggi dayo te bu suñu état yi réagiré ni ñu war a réagiré. gëm nañ ne lu war a mën a lijjanti ko. dañuy dem ci élection présidentielle mënuñu waxtaanee tamit euh, un sénégalais de l' extérieur te ñu en tout cas euh, aborder question boobu xam nañ ne souvent tamit da ngeen di am problème de bureau de vote yéen ñi nekk ci diaspora bi fu mu toll nii est ce que yooyu yëpp réglé nañu ko ci inscription yeeg révision fichier bi ak yooyu noonu. bon jamono yële ci ginnaaw euh, ñi doon def révision ñëw nañ fa parce que comme li ñuy wax. président Karim Wade sax fala bindoo loolu defe naa ne site yu bëri reprendre oon nañ ko te e, mu nekk dëkk boo xam ne ñun ñi bokk nañ ci ñu bindoon état pour ñuy e, def suñu devoir civique parce que tamit ay sénégalais lañ war a voter ay at ñu nekk fa daawuñ voter bokk nañ ci ñun ñi ñu bindoon ko état ne ko bëgg nañ tamit saa bu élection amatee aussi ñuy voter kom ñëpp am nañ fa ña ñëw nañ fa def révision mais ba léegi carte d'identité yi dellu seegut ñu ngi koy xaar nag waaye tey euh, li ma ci am lu ma lu ma lu ma jaaxal rek mooy euh, sénégalais yi ñu fa jëlee delloosiwaat leen ci dëkk bi dafa bëri. te ñu war a voté waaw te ñu woon fële ba pare dafa dafa dafa dafa dafa métti daal. waaw moo tax kon état bi war na revoiraat euh, système am ak niñ koy doxalee daal ndax man xam naa ñu bari ñoo xam ne bindu woon nañ fa te fa la ñu waroon a voté ndax man xam naa presque 500 sénégalais yoo xam ne répatrié nañ leen. yoo xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi toog. tey loolu rek euh, dafa am ci lu muy joué ma am beneen euh, affaire boo xam ne damay déglu benn politicien mu di ko wax mu ne diaspora bi dañoo war a régler parce que 4 pour cent lañ ci fichier électoral bi euh, ma koy wax ne dafa comprendrewul parce que tey élection diaspora moo koy gagné benn ay influenceur lañ ñaar diaspora bi ku fa nekk sa jabar sa doom sa papa sa yaay say sœur fa nga xool fa lay lañ lay xool parce que mag ñi ñoo naan ku ëmb sa sànqal ëmb sa sax kooku moom dama ne ko comprendrewul te il est temps aussi état bi réconcilier waat ak diaspora bi muy état bu mu mën a doon nag ak ku fi mën a toogaat ministre euh, Ismaïla Madior ma di ko nuyu au passage di ko féliciter ñaanal ko yen biñ ko yen yen bu diis la mm-hmm. waaw diaspora bi dafa am problème mm-hmm. mu ñëw moom ci image boo xam ne diaspora bi dafa am fu ñu ko farale moom dafa am diaspora bi image buñ ko jox ba pare léegi nag ñu boole kook diaspora bi yàlla miy yombal yàlla na ko yombalal mission mais nekkul luy jafe parce que moment la boo xam ne moment bu doy waar la parce que nag histoire wala tàqalikoo amut njëriñ booloo moo ëpp solo kon diaspora bi ak état Sénégal ak état bu mu mën a doon nag muy bu Macky Sall ak bu jeexee keneen ku fi mën a ñëwaat lépp dañoo war a fexe juboo ak diaspora bi. parce que man mënuma comprendre tey consulat yi nga xam ne am na ay nit yu fa dem di ko yàq wala ñu am ay nit yu fa dem yoo xam ne dañuy xeex ak ña fa nekk ak yooyu yëpp tey consulat boo dem am na ay caméra léegi ñi nga xam ne ñëw nañ fa jëf-jëf jooju mais nañ leen pour poursuivre moo gën tëj consulat bi am na koo xam ne yoonam nekku ci yaa ngi yokk say noon parce que am na ñoo xam ne seen yoon nekkul ci consulat bu ñuy xeexeek wala bu ñuy toj ñoom seen kër lañ toog mais ki fa dem ba xeex fa toj fa am nga caméra poursuivre ko ci yoon yow. léegi sénégalais bi nga xam ne moom dafa soxla consulat bi léegi yow nga xañ ko ko kon yow yaa ngi yokk say noon tëj bi du du du solution tëj bi du solution day yokk ay noonam. te yooyu yëpp état da ci war a bàyyi xel parce que dafa am ay nit ñoo xam ne tamit duñ xeex duñ xuloo faruñ fenn. mais nag soo leen bëggee xaañ seen droit wala li nga xam ne ñoo ko moom ndax ay nit yoo xam ne dañoo ñëw yàqal la noonu lay yokk kon état bi na revoiraat aussi tamit politique am à l'extérieur fexe dajale njabootam dajale leen jafewut parce que émigré yi du xaalis lañ soxla du doole lañ soxla ndax yàlla ngi leen di suturaal mais liñ soxla mooy ku leen taxawu administrativement bëgg ko si seen réew loolu rek moom moo ci moo ci nekk. Mhm. est-ce que sénégalais bëri na fa bëri na fa. non xaw nañoo raciste ne parce que turki ñoom ba léegi dañoo gëm ne ñoo gën ci àdduna bi. Mhm. waaw <laughs> ah, xam nga ko ku ku ku par rapport ak euh, yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne dëkk yi jeex nañ daw bañ nañ daw ñëw Afrique bon ñoom nag ñu ngi doogoo am image boobu parce que ñoom it bon léeg nga toog ceeg ñoom amuñ ouverture tey dëkk ba nii nga ko gisee nii mu toll nii seen xel ubbeekoogul ci noonu. waaw ñoom moom dëkk ba. doo fa duggoon di nga ne Turquie fii ñu toll ci àdduna mais boo waxtaanee ñoom xam ne seen xel àggut foofu. loolu nag lu doy la. bon looloo tax nag très bien moo tax dañoo tëju dañoo tëju merci beaucoup fi àdduna to parce que ñoom ba léegi li ñu gëm mooy ñoo gën ñëpp waaw ki jàpp nag ne yaa gën ñëpp moom voilà loolu nag problème la mais am na fi sénégalais yoo xam ne wax dëgg ñu ngi si takk am na si tamit ay turcs yoo xam ne takk nañ ay sénégalais waaw boo jaxasoo nañ moo tax bëgguñ fa lu ñaaw buñ sañoon diggante turc ak sénégal day rafet parce que mënuñ leen a xas ndax suñu deret jaxasoo na ak ñoom ñoom it mënuñ ñoo xas ndax suñu deret jaxasoo na ak ñoom moo tax bi ñu gisee euh, tremblement de terre bi fa amoon ñu gis euh, sëñ Muntaxa def ci geste bu am solo loolu day symbolique ne Turquie ak Sénégal jaxasoo nañ moo tax yii am yëpp xaw naqari sénégalais yi parce que bi mu amee autorités yi niñ ko taxawoo niñ ci def ak euh, li nga xam ne def nañ ko ci wax dëgg yàlla mu demee nii moom it lu ñu métti la ñu leen di ñoom it ñu leen di dugal ci nu ñuy def ba lijjanti sénégalais yi. parce que aussi sëñ Mountakha wax dëgg yàlla ak euh, yeneen kilifa yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi Sénégal di bàyyi xel doomu sénégalais yi nekk à ndax xam nañ ne lu ñu am ci réew mi lañ koy dellu si waat seeni njaboot nag buñ nekkee ci jafe-jafe war nañ ci wax ak président. te ma leen di lancé incha allah dinaa fa dem parce que dem naa Médina waxtaan naa ci xalifa bi dem naa aussi tamit bërki démb ci euh, Thierno Madani moom it waxtaan naa ceeg moom sëñ Babacar Sy Mansour aussi waxtaan naa ceeg moom bon après damay dem aussi tamit Touba waxtaan ceeg sëñ Mountakha parce que geste boobu mu def même bu newul woon problème sax war na ñoo dem sant ko gërëm ko ndax defu ko ngir turki waaye njabootam nga fa ne xam na ne moo tax mu def loolu njaboot gi nag deret jaxasoo na alal jaxasoo na lépp jaxasoo na fa euh, ñu koy sant ci gest boobu nga xam ne defal nañu ko te yàlla rek tax aussi tamit ndax mënoon na koo def ci jullit ak moromam waaye boole na ci tamit njabootam xam ne ñu ngi fa kon ñu ngi koy ñaanal moom it euh, wax dëgg yàlla mu ñoom it ku ci ne rek bu ñu fa demee dinañ ne la boo ci mënee waxtaan ak président wala autorité yi nañ ci waxtaan sénégalais yu fa nekk am jàmm. merci merci beaucoup Pape Matar émission bi am na solo xaw na gudd tuuti waaye jar na ko. parce que waxtaanee Turquie quand même ab réew la. plus de voilà ay milliers de sénégalais nekk fa loolu du lu tuuti on aurait pu quand euh, ñu waxtaan ak yow lu gën a yaatu lii mais je pense que aborder nañu l'essentiel quand même. waaw am na solo am na solo ñuy sant Sénégal bu baax a baax ndax euh, euh, saa bu jafe-jafe amee bu ñu leen woowee da ngeen di taxaw déglu sénégalais yi te lii moo war état lii tey état la waroon waaye malheureusement ba nga xamee ne bon. Sénégo ak beneen télé ñeneen jàpp nañ ne ja jege diaspora bi dimbale leen la ci jaamu yàlla la bokk parce que nit ñi duñ wax lu ñaaw duñ xaste duñ saaga parce que ay kilifa lañ waaye nag buñ demee ba ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite mënuñ leen a jot. danañ xool yeneen support yoo xam ne fa la ñuy yaakaar ne mën nañ leen fa jot kon aussi tamit li ngeen di def jaamu yàlla la bu leen ko xeeb parce que fii ñu waxee am na ay milliers de sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci coono te yàlla ci seen micro bi loolu saafara kon bu leen xeeb loolu ñi ci kontaan bu baax di ñaan tamit lépp luñ fi wax bu dee am na lu ci dëng ñoo xam ne nit ku xeebu rek moo doon wax bu amee luy jëriñ yàlla nañ ko bokk asalaamaaleykum jërë ngeen jëf eh, ki doon wax léegi mooy pap Matar eh, Sow nekk président de la fédération des sénégalais de Turquie doon ñëw fii ci Sénégal pour mën a waxtaanee problème yi nga xam ne eh, ñi nekk ci dëkk boobu dañ koy en tout cas faral di rencontrer Pape Matar ñoo ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal internet yi di la ñaanal jàmm ak salaam di leen dig daje beneen yoon ak beneen invité fii ci senego.com.